alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain mbokk yi ñu ngi dellu si waat di sant sunu boroom di julli di salmal ci ab yonente am muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi ñaan sunu borom mu dëkkee doot ci waanan xéwal ci kaw yonent bu bëgg ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dañu ñu nekk ci woote bu màgg boobu nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ci fukki at ak ñett di woo nit ñi ñu fas ci seeni xol ci wéetal yàlla ak kennal ko bennal ko ak topp yonent bi alayhi salaatu muy woote woote boo xam ni mooy gaal ak yonent yàlla ku ci yëg da mucc waaye ko wuute dangay ngay ci bind yële weesu ñu ngi nekkoon ci di leeral sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak aajo diñ ci aajowoo war a guñ war a topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bañ a juuyoog moom ci lenn xutba ji weesu bu ngeen fàttalikoo ñu ngi ko defoon ci ay règle yoo xam ni borom xam-xami lislaam yi dañ koo tër di wane ni képp ku bëgg a xam ndax topp gi ngay topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaar na yoon wala déet yaa ngi koy natt règle yooyee maanaam nit ñi topp gi ñuy topp seen borom seen borom bàyyiwu leen rek ak seen yëfi bopp wala ñuy topp ay xalaat yi nit déedéet liñ waroon di sonn di ko xalaat yàlla waxal nañu ko liñ waroon di sonn di ko topp yonent bi riddal nañu ko alayhi salaatu wasalaam tey kon noo ngi dellu si ci ñaareelu tomb bi ñu dige woon mooy léegi nag topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kañ lay wér dëgg la règle yee moom ngay koo topp waaye wax nag mooy yi nga xam ni mooy mën a tax nag sa topp wér ndax ndax nit kat mën naa jël ak jaamu yàlla sonn ca lool waaye du ca am siyaaba parce que nam ko doon defee ko koo bëggiwut noona ndax wax dëgg yàlla nag nit boo koy defal da koy defal lu mu bëgg su fekkee da bëgg a defal nit am ci ngërëm da nga koy defal lu mu bëgg kon sunu boroom akub yonenteem kon taxut di wax ñu ànd xam ni juróom-benn yëf ngi nii yoo xam ne dinañ ko tudd du soobee yàlla juróom benn yëpp yëfaan yooyu benn bu ci nekk dafay tax nit ki mën a xam ndax moom topp gi muy topp yonent bi wér na wala déet te yaakaar naa ni ñun ñëpp ànd nañ dëppoo ci ni nit ki moom topp gi muy topp yonent bu wérut du baax la ëllëg kon jaadu nañu xam tomb yi ndax topp gi ñuy topp yonent saa sallam mën naa wér wala déet bu ko defee ñu nattu ko ci juróom benn yëpp yëfaan yii nga xam ne day tax topp yonent bi wér bi ci njëkk mooy as sabab as topp yonent bi wala topp yàlla ndax topp yonent mooy topp yàlla man yutaa rasula faqad ataa allah ku topp yonent bi topp na yàlla kon benn la maanaam topp ki ngay topp yàlla ak yonenteem jëf bi nga koy defal dafay am sabab ndax su fekkee jaamu yàlla gi ci boppam nit ki daf koo ci sabab soo xam ne amul cosaan ci lislaam su boobaa ko koy delloo ndax jaamu yàlla yi bu nekk dëgg la am na sabab waaye yow sa façon jaamu yàlla gii nga def ndax am na sabab boo xam ne ca la ko yonent bi ak ay saxaabaam wala déet buñ ci leen joxe misaal lu mel ni guddi isra wal mi'raj ñu di ko wax kasu rajab ñu di ko wax leneen leneen ko ni ñu koy tuddee tur yu bari tur wuñ ko mën a tuddee ala kulli xaal mooy guddi gi ñu wax ni ca la yonent bi rañaanoon somb bu balaa ma kaa jàll dafa am somb bu lu am solo loo xam ni alhamdulilah bi nga xam ni bindkat yi histoire histoire yëpp ci l'islam daanaka dëppoo nañ ci képp ku la wax ni gis bii la yonent bi reñaanoon dem ca asamaan dëgg la loolu lu wér la lu am la waaye taarix ba ñu gis sàngam la ko wax na lu xamut ahlu siyar ñi nga xam ni ñooy tóore ci l'islam dañoo wuutee wuute wuute ci ban gis la mbir moomu amoon wuute goo xam ne ñi mu jéggee da yàlla ko xam ba tax al allaama ibni Baaz rahimahullah mu ni képp koo xam ne nee na la bis sàngam la mu ni kooka na nga yëg ni wax na lu xamut ndax borom xam-xam yi ko gën a foor gën koo màgg ci xam-xam ñoom sax dañoo juyoo ci man bis la dëgg la suñu borom ni ñu def ba xam ni bis sàngam ci la yonent bi judd woon alayhi salaatu wasalaam dëgg la fukki fan ak ñaar nga xam ne ci lañ génn ci bisu weeru gàmm comme ko ñu koy waxee euh, muy weeru rabiul awal loolu moom amul amul werante boobu mooy li gën a dëgër donte nag borom xam-xam yi loolu de moom am nañ wuute waaye boobu moom wér na ni fukki fan ak ñaar la ni ñu amee lu wér ci ni boobu noonu la amee su lu wér ci bis bii mooy fukki fan ak nangam ci weeru rajab nga xam ne ci la yent bi rañaanoon déedéet borom xam-xam yi dañ coo juyoo juyoo gu nit juyoo goo xamante ni gisee sut lenn lu ca lëng di wane ne bis sàngam la kon kooku moom balaa ñuy wax di ko màggal ci jaamu yàlla sax da ngay xam kaña la ba pare nëbb gi ñu ko suñu borom nëbb kon amaan na am na lum ca namm ndax bu fekkonte ni njariñ nekk na ci xam ko suñu borom danañu ko xamal su ko defee ñenn ci nit ñi dañ koy faral di jagleel ay dog yu ñu koy defal ci guddi googu wala ay julli guddi yu ñu koy def déedéet loola jaamu yàlla gox nit ki su ko defee yàlla du ko nangu subhanahu wa taala parce que jaamu yàlla gi dañ koo tënk ci sabab soo xam ni kenn tënku la ca dëgg la li ngay def lu baax la muy julli li ngay def lu baax la muy zikr su fekkee dëppoo nag la yent doon jàngale waaye tënk gi nga ko tënk ci bis sàngam laa koy defee su boobaa mooy tax jiyegin sa yent bi nee na bisab àjjuma guddik àjjuma bu ko bisub àjjuma bu ko kenn jagleel naan dama koy woor moom kese guddik àjjuma bu ko kenn jagleel naan dama ciy julli ci guddi gi waxuñu bul ko def dañuy ni bul ko ko jagleel mooy saa bu yegg nga di ko ko def kon li ñuy bañ mooy nga taamu bis boo xam ne yonent bi daaw ko taamu nga da ci def tomb boobu tamit balaa ma koy jàll xam ngeen ni werante amul ci ne ñi ngi toll ci weeru rabiul awal rabiul awal mooy weeru gàmm comme ñun niñ koy waxee waaye waree su ko wax weeru gàmm déedéet ci wolof yi xëy bu dee ci wolofal dees ku koy wax waaye bu dee bëgg caa tënk ak jaamu yàlla déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi judd woon ci fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm ca guddi ga loolu mu amul werante ndax dafa rot ci sunna ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa bokk ci lim koy màggalee mooy ñu bàyyi ba guddi gi nga xam ni la judd woon ñi di ko ko jaamulee di ca màggal déedéet loolu amul cosaan ci islam jamono jii nag alhamdulilah jamonoy xam-xam la ñi jàng nañ kàggu yi bari na te leer na alhamdulilah am xam leer na lu nekk lu mu xam ndax nit ñi léegi alhamdulilah yàlla dafa def subhanahu wa taala dama ni bu ñu jëfandikoo woon xel yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa mu juddoo muy Makka fa mu yaroo faatoo fa muy Madina ñu suul leen fa ñu suul ko fa ñu ko bëgg fonk ko gëmewuñ ko ba yamale wuñ ko seeni baay ak seeni yaay ñoo fa nekk ñee ña nga tëdd ñee ñu ngay ba tey su fekkoonte ne rot na ci sunna ni yonent bi bis bi mu judd dañ ko koy màggalee dama ni ñooña ñoo ko war a njëkk a màggal kooku benn la ñaareel bi mooy dellul gannaaw wax la ci taarix yonent bi jóge na fi saxaaba ya kenn daawul màggal guddi gi jaamu te wallahi ñooñu bu dee gën keneen ku dul ñoom ñoo la gën gën laa baax gën laa ragal yàlla amul werante loolu ku ko gis moom tëddal nga jaaxaan ba xaran te doon kafaara ñoom yàlla defoon na ci bëgg yéen sa sam yabali wuñ ko woon ak seeni bët tuuru dañ ngir sauver yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi jaral na leen lu ko yonent bi dudd ba faatu ci atum fukkeel ca gàddaay ga dem Aboubacar jël xilaafa gi ñaari at ba mu faatoo Omar jël ko fukki at ak lu topp ba mu ca paree Ousmane jël ko fukki at ak ñaar ba mu ca noppi Ali ak Abi Talib jël ko ba faatu ci année quarante muy ñeent fukki at ci après yonent bi mu faatoo di digal la mën a wax ni daanañ ko màggal guddi gi yonent bi juddu alayhi salaatu wasalaam ku la ko wax wax na lu amut xulafaaw raashiduun jeex ci fukki at yi état bu ñuy wax état amawik taxaw ke ci ci njiitu jullit ñi mooy Muawiya ibni Abi Sufyan doomam Yazid moo ca topp def nañ ay at téeméeri at ak lu topp ba ca ca di Marwan al nga xam ni ci jamonoom ci fekk na lu ko jiitu état baa ngi ñàkk doole ba ci jamonoom état amawik daanu kon téeméeri at ak lu topp mi ngi noonu yoo xam ni yonent bi jóge na fi saxaaba yi jóge fi taabi'u yi sax am ñu fi jóge te kenn daawul màggal guddi gi yonent bi judd sallallahu alayhi wa sallam état amul bi mu taxawee ca Muawiya ginnaaw bi doom Yazid ba ca Marwan al-Himar amul fenn fuñ ko mën a def mas a defee état amee bi muy daanu état abatik taxaw te ca jiitu ñu ngeen as-Saffah Abu Jaafar al-Mansour topp ca ba ni nga xamee noonu la état boobu daanoo tamit daawuñ ko def nga dikk ba ci jeexintalu atum juróom benn téeméer atum juróom benn téeméer ca jeexintal ba am ñu ne atum juróom ñaar téeméer ca tàmbali ba dëgg la lu ko jiitu sax am na ñu ko commencé def ndànk ndànk nga xam booba taabiixu ñu sax newatuñ fi ci jamono jooju nga xam ni état fatimite mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo doon wax ni ñu ngi askanoo ci Fatima doomu yonent te loolu du dëgg borom xam-xam yi xam taarix ku mel ni Ibn Kathir ñoom ku mel ni al-Khatib al-Baghdadi ñoom ku mel ni al-Hafiz Ibn Hisham ñooñu ñëpp dëppoo nañ ci ni askanoo googu ñuy askanoo ci Fatima doomu Ali nekk soxna Ali doomu yonent bi du dëgg ñooñu ay buur ñoo ko tàmbale du ay borom yi xam-xam gis ni kat fonk nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bis bu saa bu dellu si waatee nañu organiser ak feer ba ci jamono yi jii may wax muy jeexintalu juróom benn téeméeri at xoolal téeméeri at ñaar téeméeri at ñett téeméeri at ñeent téeméeri at ba juróom benn téeméeri at mu wóor na ne diggante bi sori na sori waaye goo xam ne laa sakka na ñu baax ña taxoon ñuy wax moom ñëpp dem nañ ci la mbir mi doog a tàmbali Abu Saïd al Kunkabuuri moom la ñuy wax ni moo ko gën a fësal nag ba ilaa yawmina haada mu màggee nii mu màggee ndax moom dañuy wax ne ay ginaar lim ci daan rey daana ma junni lii may wax boo delloo ci al bidaaya wa nihaaya al xaafid ibnu kathir borom tafsir bi bi muy leeral dundu waa ji muy Abu Saïd al Kunkabuuri ay guleeb ay nag ay xar ngir màggalee ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dama ni kullu xayrin fi ittibaa'i man salaf wa kullu sharrin fi ittibaa'i man xalaf yu mel nii nag boo ko waxee tey ñu ne ñoom diw lay wax wallaay waxee suñ kenn li yàlla wax ak yonentam la ñuy nekk bi li yàlla wax akub yonenteem loola nag kenn ku ci nekk yaa cay yiit sa bopp ndax yàlla subhaanahu wa taala yonent bi la ñu joxe ñu an tutiuhu tahtadu saxaaba yi ci boppam ñooy ndongoom yu gën a dégg diine te gën koo sës te amu ca kenn koo xam ni bu yonent bi gis bu mu juddoon dellu si waat ñu koy màggal ku la ko wax rek ne ko haatu ko in kuntum saadiqin ndax jamono ji daanañ ci màggal yonent bi ak juddoom ku la ko wax rek nee ko indi sam lay la ko indil de kon ginnaaw bi ci la mbir moomu doogu am ñu dikk ba ci Égypte bu am fa doole lool ndax xam ngeen ni Égypte ay kàngam yoo xamante ni lii moom dañ ko daan dundal ña nga fa dëkk tey ba jamono yii weesu boo dellu woon te seeni fañ leen denc moom daanaka da yaakaar ni moom allahu bustaan yàlla rek mooy ki gën a xam kon loolu amul cosaan ci lislaam déedéet yonent bi dañ koy màggal waaye dañ koy màggal ci ni yàlla bëgg ñu màggalee ko ko kon yonent bi bis bi mu judd ku dellu see amul genn jaamu yàlla gunu cay def déedéet genn jaamu yàlla dama ni liñ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax doog fa jagleel xanaa day nga ko daan def bis bu dellu si nga continuer di ko def comme li nga xam ne laa ko waxee woon ci bi tam xarit di jàll képp ku la wax ni am na jaamu yàlla gu rot ci tam xarit gudut woor kooko wax na lu mu xamut kon lii ñu bàyyi ko xel ci topp bi ñuy topp yàlla bu fekkee ngërëm lañ ca bëgg mooy al jins jins mooy façon bi nit ki dafay jaamu yàlla lu mu bëgg-bëgg yàlla kontaan façon bi ko yàlla bëggee nga ko koy defee benn waay mu demoon jënd fële ponkalu façam ni moom lay tabaskee dañ koy wax ni sa tabaski yàlla du ko nangu lu tax ndax yàlla bi muy yoonal tabaski dañu bahimatul an'am muy gileem nag xar bëy kon waa ji jël aw fasam muy daf ko bëgg a wala mu jël leneen loog ginaar ak lu mu demal def jaamu yàlla du ko nangu parce que jaamu yàlla gox dañ ko tënk ci jins mooy sunu borom néewu la tuural deret kese suñu borom néewu la tuural reyal ñe borom ñeent tànk kese waaye bahimatul an'am ñu jàng arab xam nañu ñengi ci namu gileem nag xar bëy kon su fekkee jins bi ngay jaamoo yàlla da nga koo defee neneen lu bokkut ak na ko yon doon defee na nga yëg ni googu jaamu yàlla yàlla du ko nangu parce que ci jins la ko bëgg ñetteel bi mooy alqadr mooy kem lu na nan gis nga benn waay bu kontaanoon ci nekk gi yàlla nekk boroomam bëgg a jaamu yàlla bu tax mu yokkaat beneen julli am nañ fajar tisbaar takkusaan timis gee benn waay bu dellu si waatoon bàyyi ba dix heures ci guddi mu sufaat gëneen julli nag muy juróom-benn julli boobu julli dañ ko koy delloo parce que julli dafa am xadr xadr gi kenn gi mooy juróom lañ ci soxla benn waay bu julli woon tisbaar ba noppi di taaya xolam sedd guy mu bëgg yàlla gën a kontaan mu ne xaaral ma dooleel ko ci benn raaka ndax mu gën a bari julli ga day yàqu bu dee yàqu tey bu dee yàqu tey julli ga day yàqu loolu moom la fuqahaa yi dëppoo bu dee tayoo ko kay lañ ko defar kon tisbaar bi nga dolli ci ñeenti beneen rakk muy juróom wala tibis bi nga dolli ci benn ngir bëgg yàlla gën a kontaan nga ne xaaral mu gën a bari déedéet jaamu yàlla guntanti ci xadr kenn bu ko dolli mi ngi mel ni ki jël ay mbir di ko zikr tamit su fekkee ma ngay zikr loo xamante ni kem ba ko yonente bi jox romb na ko alayhi salaatu wasalaam su boobaa dafay dugg ci bunt bi tamit niki noonu ci yeneen jaamu yàlla yi nga xamante ni xam nañ ko yépp kon tey ay jaamu yàlla yu bari yoo xam ne nit ñi nañ koo dolli boo dikkee ci bisab tam xarit am na julli bu ñuy julli man julli ko ko mën a ñu ngi koy defatem léegi loolu ba ba nekk dañuy nekk sa daara ja lañ ko daan gis waaye man gisatuma nit ñi di ko def am na julli bu ñuy julli am na zikar yu ñuy zikar bisub tam xarit tamit kazalika fukki fan ak juróom-ñaar yooyu ci kas rajab boobu kadalika soo ñëwee ci saabaan tamit nisfu saabaan saabaan bu nekkee ci digg ba tamit kadalika yooyu xeeti jaamu yàlla amu ci benn boo xam ni ka ko def boo ko laajoon ni ko haatu burhaanaku dana ko jox déedéet ñoom diw ñoo ko waxal te li gën a kéemtaani mooy doomu aadama yi dañoo doya di ci waya di ba nga xam ni léeg-léeg boo seetloo yu mel nii boo laajee nit ki may di wag diw moo ko def te teeg diw moo ko wax nangam ak càllale gu dëgër benn keno ci keno yi laa yi sax duñ la ko mën a joxoñ ñi moo ko doon def waaye borom xam-xam yi nga xam ne tey ñooñu wattu sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam amu ca kenn koo xamante ni dafay taxal mbir moomu beneen bi ci def mooy alkayfiya façon biñ koy defee tey ku ne xam ne ni jàpp da raxas sa ñaari loxo dalax ndiku sarax ndiku sëlmu raxas say loxo ba say conc massa sa bopp raxas say tànk dem sa yoon benn waay bu dikkoon moom mu daal tàmbalee ca tànk yi jëm si ci loxo yi wa illaa boog mu daal di sëlmu ba noppi raxas tànk yi dellu siwaat galax ndiku defee ko na ko neex dañ koy wax ni ko sa njàpp bi baaxut parce que jaamu yàlla gi tudd jàpp dafa am façon bu ñu tuddee kayf mooy yonente bi alayhi salaatu dafa wax saxaaba yi ci xadiisam Abdullah ibn Zayd ibn Aasim te loolu mi ngi ci mi ngi Muslim jox leen ma ak satala saxaaba yi gisuñ satala ñu gis lu ñu tuddee ak mooy loo xam dafa mel ni kitel wala lu mel ni euh, euh, nu mu tudd këll ñu andil ko ko yonent bi jàpp am jàpp saxaaba yi da gis nam doon jàppee ba mu ko noppee dafa wax lu leer ku jàpp comme sama njàpp nii la mu wax lu leer la kon julli ga tamit sallu kama raaytumuni usalli ca aj ga mu ni xudu anni manasikakum ni ngeen di ajee kaay leen ci man ndax amana déwén du ma fi fekk loolu mooy mi ngi tàggatoo kon ku jàpp comme sama njàpp ñii soo paree nga julli ñaari rakk yoo xam ni yaa ngi bàyyi sa xel ci li ngay julli yàlla jéggal la say bàkkaar lépp kon man tawaddaa benn riwaaya mu ni misla wudui haada beneen riwaaya mu ni naxwa wudui haada kon njàpp tamit ak yeneen yu dul moom dañ koy defee noonu léeg-léeg nga gis tamit xeetu julli goo xam ni da ngay gis nit kabaar di tàmbali tari xul wala ahad mu tali ko nangami yoon dëkk julli ci sariya te génnal sax julli dama ne julli ak zikr soo delloo ci kàdduy sunna yi sunna yi tàmbale ko ci Muwatta Maalik ci yi fi jiitu woon imaamu Maalik imaamu daaril hijra jaar ci Musnad Ahmad ibn Hanbal romb téere sunna yi Buxaari ak Muslim ak tàggu yi nga xam ne ci la ñuy dellu ci ñoom amul benn saar boo xam ne dañ lay digal dee ko jàng di ko baamtu déedéet amul waxuma sax ci biir julli soog rek di ko zikr di ko wérd loolu amul ci jàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxuma laa nag ngay julli ñu ne la da ngay tari fukki xulwaag benn wala fukki xulwaag ñaar wala da ngay tari junni xul xul te xel sax xel nanguwut loolu qul wallahu ahad nga xam ne yonente bi mooy suratul quran boo xaajee alquran ñetti xaaj benn genn wàll ga mooy qul huwallahu ahad yaakaar ngeen nit mën naa taxaw di ko tari ah tari goo xam ni da nga caa bëgg a cellaangeeg baaxaay nga bëgg caa def junni moo tax it njàngin ma mooy comme njàngu alxuraan mi ngeen fi gis rek ñu gis waa joo xamante ne buy jàng alxuraan da ngay yaakaar ni sawaay làmmiñam yi machine la sab sab sab alxuraan joo xam ne moo tax yéen ci yàlla ba alayhi salaatu day wax ni bari na kuy jàng alxuraan fekk alxuraan ñu ngi koy rëbb kon njàng mi suñu borom néew la wàcc ko néew la mokkal ko li wala nangam ko dañuy faqra'u ma tayassara min alquran li jàppandi kese def ko kon jaamu yàlla gi nga xamante ni moom façon bi nga ko doon defee wala kay bi defoo ko su boobaa jaamu yàlla googu yàlla du ko nangu sopp go yonent bi tamit kadalika beneen bi ci des mooy ak zamaan place ban ko war a defee dafa am jaamu yàlla yoo xam ne suñu borom dafa tënk ni place sàngam wala jamono sàngam bi euh, ak zamaan mooy jamono benn waay boo xamante ni nit ñi dañ doon woor moom bàyyi ba sawaal ñëw xam ngeen sawaal mooy jiitu ramadan ah sawaal moo topp ci ramadan kon saabaan moo jiitu ramadan waa ji nga xam ne dafa ñëw ci saabaan mu ne ah man de damaa bëgg a woor weeru koor ci weeru saabaan gis nga damay woor fanweeri fan yi ba mu yegg te koor du baax lu tax parce que jaamu yàlla koor dafa am lu ñuy tuddee ak zaman muy place biñ koy defee muy jamono jiñ koy def wa kadalika ni ki noonu waa ji nga xamante ni moom dafa bëgg a taxaw arafa mu daal di bàyyi ba juróom-ñeenti fan ci weeru zulxaada muy weer wa topp ca weeru aj mu doog a dem taxawi arafa su booba dañ naan ko sa arafa ji amut njariñ parce que dafa am temps buñ ko tënkoon moo tax lele léeg da dugg ci oto yooyu nga déglu ay wax wallaay da ngay xam ne gis nga ñàkk jàng moo gën a muy def moo gën a bon façon ni muy def tax nit ñi dañuy wax ay wax yu doyati yoo xam ni kilifa gi ñu koy askanale yaa ngi koy xasul te yëgoo ko xëy na nit ñi ñoom duñ bàyyi xel ci yooyu benn ci oto ma dégg waa ji di wax ne xaw ma mu tudd kilifa gu mag boo xam nit ñaa ngi koy topp fii dafa jóge fii dox ba Màkka bi mu demee fekk ñi aj ba noppi muy nañ ko ubbil kaaba gi naar yi ni ko duñ la ubbil kaaba gi mu toog ci bunt bi julli ñaar rakka ñaan yàlla kaaba gi ubbeeku mu dem defuk ajam jëllu tuwaat yow yaa ngi saagalu kooku te yëgoo ko ndax li koy saagaloo muy kooku xamul dara li nga wax su fekkee dëgg la mooy wane ne kii xamul dara ndax aj bu xësee passé dama ni amut kenn seen saxaaba ya bu ñu dekki woon bu ñu dellu ti waatee déwee na fi rek déwee na fi mënuñoo ajat kon waajooju mooy xamul dara ndax bu xamoon sharia dëgg la bu fekkoon day umra ñu ne san san te loolu jarul ko coow ndax yonent ba mu ni koy ni ko doo umra dafa lemaat ay kaakaar ak dama gën dem yoonam te la saxaaba ya meroon ba yàlla wàcc aaya ah la tadxulunna almasjid alxaram insha allahu aminina muxalliqina ruusakum kon mbir yi am na loo xamante ni boo ko waxee yaa ngi xas nit ki te yëgoo ko parce que loolu li muy wane mooy xamul diine ndax ku xam diine du defee noonu kon zaman mooy place sangam ca lañ koy defee wa kadalika al makan makan tamit mooy place ba jamono ji ak place bi i'tikaaf mooy nit ki bàyyi ba weeru koor jot fukki fan yu mujj ya mu defar ay bagaasam bàyyi fële ay téléphone am ay segam dénkaane la muy dénkaane jàpp ba teel dugg te jàkka ja fas yéene toog fukki fan yoo xam ni julli jàng alquran naati la doo génn len daa lay tax ñu may rek a lu mel ni ab néew nekk fi nga xam dem armée del suwat duggaat jàkka ji wa illaa nga am ku feebar ba sonn lool nga dem waaye bu dee soxlay doomu aadama yëpp ngay dakkal te jàkka ngay yendu ca ngay fanaan ba timis gi ñu wax ni weer wi feeñ suba la ñuy wari nga doog a génn loolu moo tudd i'tikaaf benn waay su fekkoon dafa toog am yàgg mu takk kaakaam comme ni ma ko waxee dem toog kër muy fa lay defee i'tikaaf su ma wàllam def baaxu parce que i'tikaaf ci jàkka lañ koy defee kooku benn la wa kadaalika waa ji nga xam dafa waroon taxaw arafa mu bàyyi ba juróom weer fan ci weeru zul qaada nga xam ni arafa weesu na lu mat weer mu ñëw bëgg a taxaw arafa mooy li ma waxoon sànq dañ koy wax taxaw ji baaxut foofu léeg-léeg nit ñi am na yenn xeeti nax yoo xam dañ leen koy nax ci lii lépp rek mooy li may faral di wax rek am na yoo xam ne ñi ko war a leeral duñ ko leeral ndax ci téen ci ci day bañ ku téen ci denc ci karandal day bañ ku sëgg da ngay dégg ñu ni ëj Cheikh diw day ab sàngam moom kenn gisu ko ci avion yi kenn gisu ko mu dox te fii la nekkoon ci bisub arafa ñoo moom ñoo yendoo ndoo arafa te effectivement ñoo yendandoo arafa ñu gis ko arafa loolu du dara gis nga seytaane ci boppam nit ki koy jëfandikoo seytaane man naa bàyyi ba bisub arafa mu ñëw fii yenu la fii tap tap même pas vingt minutes nga àgg arafaat sol sa weex tàll kaalawu ña fa nekkoon ñëpp la xamoon ci Sénégal xam la balaa ajjee jeex nga dellu si waat daggoo billet defoo avion waaye loolu moo di doya di dëgg dëgg yow àddina bi yëpp ñun ci milliards yi doomu aadama di jaamu yàlla te Sénégal aj ñëpp wax daanaka ñoo gën a tuuti ci ñuy ñëw ci aj ga ndax da ngay benn mbooloo moo xam dañuy yore benn drapeau ñu ne ñii ñooy waa Chine ñu ne waa Chine waa Sénégal mën nañoo dugg te seen biir mbooloo moom a réer pour wane ne ñoom ñoo gën a tuuti ci ñuy ñëw ñoom ñëpp ñu mën a bàyyi lañ doon def ñëw fekk masaari daw safa ak marwa def tawaaful wida da tawaful qudum da tawaful ifada taxaw musdalifa taxaw arafa dem munan sànni jamra loolu yëpp ñu def ko yow amoo lenn looy de lu dul nga bàyyi ba arafa nga ñëw taxaw te ñëw gi ban njëriñ lay am loolu fontoo sa bopp laay fontoo yàlla ak yonentam la amul sens kon yooyu tamit nit ñi bàyyi ko xel maanaam taxaw arafa ci boppam du mooy jëb dëgg la yonent bi alxajju arafa ak moom daanaka arafa tax ñuy wax mooy boo ko ñàkkee moom amul réparé loolu lay tekki waaye tekkiwul ñu arafa mooy aj bi kon al makaan tamit faw ñu bàyyi ko xel xam ni loolu faw bokk ci jaamu yàlla yi beneen bi ci des mooy jaamu yàlla yi ci boppam ñun ñëpp ñu yëg ni li ngay toppee yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu caagi ni faw nga xam nangam ji lu tax rek nga doog de def dafa am nit ñoo xam ne dañoo compliqué compliqué ba lépp lu ñu leen jox tekkal sariya yi ñu ne lu tax lu tax lii lu tax lee déedéet al allaama ibni utaymin nee na dafa dañoo war a xam ni topp yàlla ak topp yonent bi ñaar lañ ñoo xam ni ci kanam kenn du leen laaj lu mu ni yàlla akub yonenteem kenn du leen laaj lu tax gis nga sunu borom la yusalu amma yafaalu wa hum yusaluun yàlla kenn du ko laaj lu tax lii pourquoi parce que li dëpp déedéet wa yusallimu taslima da ngay jébbalu rek nangam ji bopp nit bu nangoo tam xel jël bu nanguwul tam xel tamit jëlal mu ne parce que yàlla akub yonenteem ñoom la ñuy digle ca la xikma nekk la ñuy tere ca la xikma nekk soo ko xamee baax na soo ko xamul tamit baax na moo tax maa kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim du jaadu ci ku gëm yàlla ku góor ak ku jigéen bu yàlla ko yonenteen yoonalee benn mbir ngay am soi naan ah man kat nii laa ko gis déedéet sukkal rek nga jébbalul ca loola ndax loolu su fekkente ni ñu ngi koy defal ay doomu aadama xam ngeen ni yàllaa ko yonente bi ñoo ci gën a yey moo tax kon topp topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam amul laaj nangam ji lu tax Aysa bañ nee lu tax jigéen bu gisee baax moom day fay koor te du fay julli Aysa ku fi naan comme ñun li ñuy wax léeg-léeg nga dégg jàngalekat bi parce que julli dafa bari day répété yow kenn wax loolu noonu Aysa mi soloo xadis bi bi ñu ko laajee laaj bi xam nga lu mu wax te jamono yonente bi daal dañ daan gis baax ñu digal ñu fay koor te duñ fay julli mu jeex Aysa moo la gën a dégg diine fuuf sax loolu amul werante ndax ak goney saxaaba yi xudayfa ñoom abu musal asari ñoom abu saadin al xudri ñoom ñoom zayd ibn saabit ñoom tenkani saxaaba yi ak gone yi rëpp nañ seeni tànk ci kanamu ayta jàng ci ñoom kon moom li soloo xadis bi koy wax dëgg yàlla ar rawi adra bi maa rawa borom xam-xam yi mustalax yi dañuy wax ni ci soloo xadis ak keneen ku dëgg xadis moom ma ko soloo moo la ko gën a xam kon yamal ci li lam yamoon mooy nii lañ ñu ko digalee nañ ko defee noonu moo tax Omar ibn al Xataab radiyallahu anhu dafa toog benn bisum yàgg mu ni waay jàpp sa bopp bi dindi soo sol mbaxana cerex laa yi dindi sa màgg mi fii mel ni ku tumuranke te lislaam a ngi nii am na doole xam nga loolu mooy ci aj xam nga aj amul sol mbaxana amul amul amul sol comme li ma sol nii da ngay cerex laa yi génne mbaggam day ñor Omar xool ba mu yàgg mu ni waay affaire torox torox laa yi bay sa dëgg bay sa yaram yi muy jàng ca biti waaye te lislaam am na doole lii ba mu yàgg mu ne ah waaye nag day ak lu ci xel mënti dugg dugg du na nan ko daan defee daal ci yeneen yonent bi même bu lislaam amee doole noonu la ñuy continuer di ko defee gis nga loolu mooy al ittibaa dëgg la amaan na xam na ci ay xikam yoo xamante ni moo taxoon ñu def ko yàllaa xam waaye ànd ak loolu lépp lam doon xajarul aswad rek dafa ñëw ci xajar ba muy xeer woo nga xam ne ci xeeri ajana yi la bokk te loolu mooy di gën a wér xeer la weexoon tàll bi mu wàccee bàkkaari doomu aadama yi tax na mu mel noonu mel ñuul ñu naan ko xajarul aswad waaye xajarul abyad la woon nga xam ne nit ñi bu ñu dikkee dañ koy fóon nga xam ne li ci nit ñiy daj te fóon ko jëru ko xat-xat loo ko ba ay nit di fa dee jëru ko sunna day jàngale boo may dem ba fóon ko dëgg la def nga lu baax soo ko mënul tàllal sa loxo lii nga ñaan ñaan nga nga ñaan nga dem sa yoon Omar daa dikk ba ci xeer wi xool ko am yàgg mu ne ko yow sa fóon gi lay fóon aw xeer kese nga man faale wu ma la gis nga bu dee woon ak yonent bi laa gis lay fóon duma la fóon daa di fóon dem yoonam amee ay choix say choix du rek parce que da ngay gumba lu eh, doomu aadama yi ñuy di leen defal dama jàpp ni yàlla akub yonenteem ñoo gën a yey ñu defal leen loolu dëgg la nag lii ma wax tekkiwul ni jaamu yàlla yi kenn du xam lu tax ñu def ko ahan kay bañ wooree ba noppi suñu borom lu mu wax lan mooy objectif bu koor mu ni laallakum ngeen am ragal yàlla kon objectif bu koor bokk na ci mooy ragal yàlla yeneen aay mu ni laallakum tatazakkarun ngir ngeen waaru laallakum tatafakkarun ngir xalaat kon am na yoo xam ne islam sharia alquran ak sunna da koy jàngale ba noppi wane ne nangam jii kat nangam la su dul ko woon ak nit ñi dañoo nekk ay wàcc bees ci l'islam kat kaaba gi danaa ko toj tabaxaat ko nga xam ngeen ni kaaba gi am nay jamono ak taw waame moo di dikkoon daal di koy màbb booba lislaam ñëwagut li ma wax ni yàgg na gars yi ne nañ tabaxaat kaaba gi biñ koy tabaxee pour wan la ne la ñu am nañ ay qualité yoo xam ne wallahi lawla al iman wa shahadataan ñoo ko ëpp li ñu tey ñu tey xoolal yéefar yi ñoo doon tabax kaaba gi ñu ne waaye na ngeen fexe ba benn dërëm bu leewut bu mu dugg ci kaaba gi yàlla gi te ñoom ay yéefar lañ ku doon jaay sàngara soxlawuñ sa dërëm ku jaay yàpp mbaam soxlawuñ kuy lekk riba soxlawul sa dërëm ku nekk na seet sa alal la nga doon bay wala li nga doon commerce lu ci gën a lew te lii may wax nii ni yëfi jullit ay yéefara ko doon def ku nekk seet la gën a sell ci sa alal nga andi ko ñu tabax ci kaaba gi ba muy waaj a am ruq su def ruq soosee alal ji matewu ko gaa yi ni mukk kon nañ ko bàyyi bu ko kenn boole ci kaaba gi ndax bëgguñu lu sellul dugg ci ci lañ dem ba ay jamono yonent bi mu ni bu dul dañoo jël kaaba gi def ci seen xott bakkan ko fondement ba ko yent yàlla Ibrahima defaloon loolu dinaay wax ni duaat yi jàngalekat yeeg yarkat yi danañ ci déggee ne du caagee ne lépp lu war a am rek day am am na luy mën am ak li war a am li war am ku ne xam na ni moo war a am waaye su mënta am du am bu fekkee ay risque ngay ngay ngay ngay yenu ku ne xam na ne yonent bi la gën a ñemee ay risque fuuf waaye léeg-léeg mbir day toll foo xam ne pour mbañum njaxas da ngay mu wëy te loolu du ragal déedéet loolu du ragal loolu mooy daawa ndax noonu la yéen doon def alayhi salatu wasalaam bañ demee ba ci jamono yi ibni Zubayr ibni Zubayr mooy Abdullah ibni Zubayr te la leen fàttali xadis boobee gars yi ñenn ñu ko xamul ñu ni ko déere loolu da ngay sofal yonente bi alayhi salatu wasalaam moom nag ak sidwu dëgëroo moom moo ko defaat noonu biñ ko laajee Aïcha mu ni wax na dëgg de loolu de yonente bi moo ko waxoon alayhi salatu wasalaam kon am na yoo xam ni faw ñu xam li nga xamante ni mooy beneen bi ci des mooy ñu nit ñi sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërul mbugal bakkan jërul sonal bakkan concentré wu benn place sëgg doo noyyi doo wax di di di xam ni guddi gi yëpp ci ngay toog déedéet am na lu ko a wallahi loolu am na lu ko gën a baax gis nga yonent bi dafa toog di xutba moom yàgg mu seen benn waaye nela ca naaj wax mu ne waa kii kan la ñu ni ko kee de abu israil la mu ne abu israil lu def ci naaj wi mu ne moom kat daal 10 day woor te it bu dikkee ji du toog day te it du toog ci kër ca naaj lay taxaw xadis bi nga xam ci Buxaari yonent bi ni ko éy ñëwal toog ci kër gi jógeel sa taxaw bi nga toog koor gi nag mën nga saa continuer ah gis nga koor gi dafa amoon aslu ci sunna koor muy jaamu yàlla am na cosaan ci sunna kon da koo bàyyi loolu la am cosaan ni ko def ko waaye la nga xam ne ni taabibu nafs la muy sonal bakkan yonent bi ni ko déedéet naaj wa mu ni ko jugal ci naaj wi toogal ci kër gi ah taxaw bi mu ni ko jugal taxaw bi nga toog ndax loolu amul cosaan du jaamu yàlla bu yàlla yi gërëm waaye lan moo tax woo ko dogal sa koor gi parce que koor jekki-jekki misère woor noonu rek mën naa nekk kon yu mel noonu ci ñun ñu xam ni mbugal bakkan wala sonal ko bi mooy tax jaamu yàlla yi gën a nangu comme ñenn ñi nga xamante ni ñooy sopp euh, yoonu tasawuf nee na ñooy la ñuy wax tey sax man pour man ñi nga xam ne ñooy wax loolu xamuñ sax luy tasawuf parce que tasawuf aw yoon la am nañu ci jaaroon am nañu ci def ay jëf yu baax am nañu ci def ay safaan waaye ala kulli xaal loolu nekk suñu yitt tey la ñu yitteel rek mooy am na ci ñoo xam ne lan jàpp ca tasawuf mooy doo lekk yàpp doo lekk firwi doo sol genre yére yi perkaal ngay sol xam ngeen tasawuf baat mi ngi jóge ci ab suuf Cheikh al Islam Ibn Taymiyya ci majmuatul fatawa ak yeneen i borom xam-xam yoo xam ne bind nañ ci loolu dañuy wax ni baat mi ngi jóge ci ab suuf am na ñuy wax ni mi ngi jóge ci benn bu ñuy wax suufa waaye yooyu yëpp benn wiru ci am na ñuy wax ni mi ngi jóge ci ahlu suffa boobaa gën a ñàkk sax a wér na faf ahlu suffa mooy ñe nekkoon ci jàkka yonente bi alayhi salatu wasalam a lay wara ne loolu amut ahlu suffa bi ñoom ñoo taamu woon génn seeni kër ñëw ca jàkka ja dañoo ñàkkoon amuñ fuñ dem ñu ne ca jàkka ja beneen bi ci mooy am na ñu fa nekkoon ba mu yàgg ñu génn dem ndax Abu Hurayra ca la bokkoon mu yàgg mu génn dem Saad na bi Waqqaas ca la bokkoon mu yàgg mu génn dem kon ku ca nekk ba am ay moyens da ngay génn dem kon nekkul aw yoon wuñ doon topp naan lii la loolu si nit ñu bàyyi ko xel sol yére yoo xamante ni perkaal lay doon wala sisi bu bu bu weex ah léeg-léeg doo sangu sangu yu bari doo peñe sa kawar gi da ngay déedéet yeneen bi moo la gën a alayhi salaatu wasalaam dama ne bu musaana i'tikaaf li ma leen wax sax day jël boppam yoor ko ca fenêtre jàkka ja Aysa ñëw raxasal ko boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon yu mel noonu ñu bàyyi ci xel xam ni jaamu yàlla yi diis yi dinañ faral di wax mbokk yi wala woo yëkkati mu diis rek xamal ni bagage Muhammad liwu ca sallallahu alayhi wa sallam wala ci loo yëkkati mu diis attanoo ko xamal la ca nekk du bagage Muhammad waaye bagage Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foo ko romb lu naaju tàng tàng day neex a yenu parce que yàlla li sant lu nuy man lay doon ndax wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj millata abikum ibrahim yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra yu mel nii ay xeeti règle la yoo xam ni ak i yoon yoo xam ni nit ki ci lay toppee pour ñu xam ko dëgg-dëgg pour mu leer faw nit ñi jàng seen diine faw ñu jàng seen diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay mag ay paa ay meer dañ doon ñëw ci ron keppaara mu di leen jàngal la nga xamante ni mooy diine bépp jaamu yàlla goo xam nit kaa ngi koy def di ca jubloo kontaan loo sunu boroom te sellul mbaa toppul yonent bi alayhi salaatu wasalaam googa jaamu yàlla yàlla du ko nangu subhaanahu wa taala yonent mu ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ku jëf jëf joo xam ne amoo ci suñu ndigal dañ la koy delloo ah képp koo xamante ni sos na ci suñu mën a ahdat bi amrina hada ma laysa minhu fa warad ku sos ci suñu mbir mi lu ci bokku tamit dañ la koy delloo comme jaamu yàlla ci boppam dafa am ñaari source muy alwaxyayin day bàyyi koo ci alquran wala mu bàyyi koo ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam léegi nag min al aan li ko tàmbalee tey jëpp jaamu yàlla goo xam ne yaa nga cay solo di yàq sa énergie da nga war a laaj lii moom ndax yonente bi moo ko jàngale wala déet mooy li ma doon joxe sànq ci misaal amul fenn koo xam ni saxaaba ya ñu baax ñu ñu sell ña alquruun salaat al mufaddala ñetti téeméeri at yooyu nga xam ne yàlla tagg na leen ci alquran amu ca kenn ko xam ni doon na màggal guddi gi yonent bi juddu alayhi salaatu wa salaam ku ko wax wax na lu mu xamul te gannaaw gaa gannaaw ga la am dama ni law kaana xayran la sabaquuna ilayhi bu doon yiw doo nga ci nekk ak màggal yonent bi fonk ko dama ni ñoom dinañu ci jiitu waaye lay tax ñu bàyyi ko fa la muy wane moom mooy kon ñoom dañoo xamoon lii kat du ngërëm ca la nekk waaye ngërëm ma ngi nekk te la yàlla gërëm akub yonenteem nu ngi ñaan subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq saxal ñu ci njub gindi ñu teg ñu ci ala sirat al mustaqim yal na yàlla xiirtal ñu ci toppandoo yonente bi ndax loolu ci la njub nekk ci la mbaax nekk al imamu Shaatibi ci téere bi bu taal ko al i'tisaam mu ne jaamu yàlla gi bari waayu am njariñ waaye du yéewaay gee tax yàlla bañ laa fay waaye kem qualité bi mu am mooy tax yàlla fay la te qualité bi ñu ngi dëppoog ñi ko yar doon defee rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين